alxamdu li ñuy sant fii Cheikh Bamba ngir moo taxaw julli woon fa Ndar ba sañ ko tey alxamdu li fii Cheikh Bamba ngir moo taxaw julli woon fa Ndar bañ sañ ko rakkaam ya mooy sawata ci ñun mooy dox ba màggal ko moo di li war ci ñun di ko sant tey biro fa ndar moo te mbër ya fa jaar ba wey ku ci dul sëriñ Tuuba keroog si ñëwoon nga wey soldaar saam ak waatir bi naal keroog ñëpp xëy kañu naan borom ndar ñëw taxaw di ku yàlla jey ma mer tanaal moom keroog président nga wax mbaa nga wéy mu ni leen baleel islaam mu fay bu mu weesu tey tas jàkka yeeg seen daa rëy ma kenn lay ku ni noo maray ku ni wii ma fay ko mu daal di islaam di jooy foofee ba xëy doon waaja wéy ba tey Cheikh Bamba moo gàntal keroog yanu ba wey bim dellu see kenn jàmbatul boobee ba tey dugoon ak Serigne Touba danuy nasaraanu tey xawlan wa fi'lan moo waral nuy Bamba tey dugoon ak Serigne Touba ba tey julli kaay fay kon sant war kuy woote tey Cheikh ku fi xam keneen ku fi ñëw fa mu jaar ba wey ku ni amul feeñul ci ñi ca gaañ wey bim tàmbalee bañ yaa ree naa wey ku ko njort woon daa réere mbir tey tuubaa tey ku ko ree raw Cheikh Bamba kenn du ko sóoru tey ña ko di ko méngaleeg ulama wey ba ñu leen jëlee teye leen fa ndar moom a wey yam def gaboo xasaayu wey nasaraan ya bañ mbooloo taxaw waxuma di way riddal ilaahu alal xadim di ki yàlla jërëjëf sëriñ Tuuba sa jëf na ko yàlla fayin bim dellu see ku ne jàkka yaa nga fa sampe tey ñuy sant rek ku ne jàmm xew ci sa diine tey bim dellu see ku ne jàkka yaa nga fa sampe tey ñuy sant rek ku ne jàmm xew ci sa diine tey riddal ilaawaam alal xadim di ki yàlla may jërëjëf sëriñ Tuuba sa jëf ko yàlla riddal ilaahu alal xadim di ki yàlla may jërëjëf sëriñ Tuuba sa jëf ko yàlla fay addi borom Tuuba Xaadimu ñaan képp ko dégg suñu borom faj sa aju ci barkeb sëriñ Tuuba xasida